dina ngeen jëf mbokki Actubuzz TV mbégte contentement di leen euh, indil seen information chaque jour li nga xamante ni rek moo xew euh, polémique fii si réewum euh, Sénégal jaa ngeen jëf rek tey rek ñu dëkk ak yéen si kii di oustaz Modou Fall yaakaar naa ni boobu ba tey rek polémique baa ngi daal di jóg gannaaw rek bu mu waxee kàddoom yooyee fële sa quartier général moom rek oustaz Modou Fall daal di wax rek carrément ki ni daal di gërëm ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall ak ki nga xamante ni moom mooy soxna am di euh, Marème Faye Sall gannaaw euh, bi ñu ko defalee boo bay teranga euh, kii di Marème Faye Sall koy jox rek suukaru koor avant koor gi di commencé Macky tamit mu koy gërëm si oto bi mu ko daal di jëndal mu mel ni rek loolu bu mu weesoo ab polémique da si daal di jug rek sénégalais yi ku si nekk di ko ñi di wax lu leen kii abu ndax nga gisee li nga xamante ni moom mooy Oustaz Modou Fall tey jii polémique bi daal dinay bari lool lool pour toog fii di waxtaan ah polémique bi xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy def ci li nga xamante ne mooy ci côté oustaz Modou Fall. ak mooy xam naa peut-être xëy na lu mu nekk li nga xam ne mooy oustaz ah dafa am côté bu mu war a taxawee ak dimension bi mu war a féetee mais li wër mooy que mooy ah li mu insulté li nga xam ne mooy sénégalais fi mu nekk mun na xari ah mun sa si bi nga taal sa gaasu maam xaw ma nga daal ciy toog loolu la moo nekk ci leen rek man ci loolu mu mu mën a xari parce que nag mais am na droit sant ki ko ne parce que xëy comme oustaz la day sukkandiku santul nit rek mënoo sant yàlla te xëy na defal na ko teraanga moo tax mu sant ko parce que yi ah rek battaas rek man damay jàpp ne ustaasu ay genre collection rek bu bu que ñoom euh, léegi affaire yi dañ koy jàppee comme mbir mu soo bis quoi man el moom loolu laa gis daal alors mu nekk mbir mu euh, doy loolu parce que sans que boobu ba tey si koor gi polémique day daal di jub ku si nekk daal di wax mu mel ni tey tamit te dafa am lu xew ki nga xamante ni rek moom mooy oustaz Ousmane euh, Touré moom tamit dafa jóg daal di ñu ko éviter woon ko fële mu daal di euh, euh, wax tamit dal si kaw ki nga xamante ni mooy oustaz Modou Fall daal di koy xamal ni carrément que ñoom rek euh, moom directement daal di koy dal si kawam di xam ni carrément que moom oustaz Modou Fall ak ñi nga xamante ni ay moom ay ay ay moroom ak képp koo xamante ni day def li nga xamante ni moom la ñoom dañuy nekk di di di daal di saltel deru li nga xamante ni ñu oustaz yi mm-hmm. voilà moom sax daal dinay wax li nga xamante ni rek mooy oustaz Modou Fall yaakaaroon ni sax wax ji mu wax ginnaaw bi mu waxee ni carrément koo nga xamante ni rek bañ na kii di Macky Sall na nga ah, jël gaz tox yi mu nekk ñoom ñu daaj koy ñaawlu lool moom sax wax ne ni carrément que dafa institut li nga xamante ne moom mooy sénégalais yi moom sax nee euh, ni moom mooy euh, sénégalais yi nga yaakaar ni li mu wax noonu euh, dayoo gi nan naka la demee abu waaw ci foofu surtout laa lay tontu mooy sànq mooy li mu wax sama kàddu ah li mu insulté li nga xamante ne mooy population Sénégal ah. li mu wax ci li nga xamante ne ku mu naqari nga dem toog sa gaasu moom toog ci et cetera nee loolu mooy li nga xamante

xamante moom Oustaz Modou Fall def ko mais à part a loolu yeneen yi muy def yëpp yeneen activités yi waaw man nekk loo xam man ñaawlu ma ko rafetlu naa ko parce que émission yi muy def ah, ak Pape Seye Diallo mooy bi muy xaw ma ah, rendez-vous midi pile xaw ma et cetera eh, kii mm. émission boobu mm. mu ngi mu ngi fay joxe loo xamante ne mu ngi yeetee am nga dèjà que am na comédie bi nga xamante mu ngi am ci plateau bi mais lu ëpp ci xam-xam lay waxtaane ak ci arxuaan ak lu wérte wóor loo xam ne kenn du ko ci dindi yaa ngi comprendre waxuma nag pour dama ànd ak oustaz Modou Fall deuxième fois bi may waxee que mooy ah, oustaz Modou Fall plateau bi mu toog ñoom oustaz yooyu yëpp ku ne ña nga yàlla ñoo toog foofu nañu waxante dëgg mm. yaa ngi comprendre sénégalais moo mel noonu bu bu sa morom amee lu mu amul peut-être xaste day bari mais Oustaz Modou Fall kon buzz bi commencé na koo sonal keroog li mu wax nag mooy euh, problème de communication keroog la def carrément moom Oustaz Modou Fall problème de communication dafa communiquer ci lu mu xamut di nga problème de politique et cetera ay neexul nga taal sa gaz maam toog loolu moom Oustaz Modou Fall dafa juum foofu keroog ah juum na foofu wax na loo ne maîtriser wu ko ah yaa ngi comprendre peut nit mun na toog fenn wax ba pare après boo demee ca kër ngay comprendre li mu wax nekkul loo ne lu dëgg te du yoon loolu daal laa am lu ma ci sànni comme grain sel yi nga xamante ni tey pour Sénégalais yi ñu mun koo déglu bu baax a baax ilmu voilà ba tey comme niñ ko daal euh, boobu noonu mu doon ko amal muy mu di pile mhm. ak ki nga xamante ne rek moom mooy Pape Cheikh ba tey sax ki nga xamante ne moom a baax parce que je pense que ñoom tamit nee nañ euh, oustaz euh, moom nekkul lenn lu rek oustaz yoo xamante ni rek wàllum sëy la ñuy daal di wax rek ak euh, maanaam oustazu buzz mel ni oustaz Modou Fall ñu bëri dañ ko ne dañ ko classé oustazu buzz yi waaw dañ ko classé si oustaz buzz yi yaa ngi comprendre parce que moom oustaz moom pourtant moom bu ñëw fan yi la de mais am na ñu fi nekkoon ay oustaz Iran Ndaw cetera ak ñeneen ak ñeneen jaar nañ ci gars yi doon tuddee ay oustaz ñoo oustaz bi oustaz buzz et cetera affaire yooyu noonu c'est xam diine ak l'islam dafa jàngale loo xamante ne dafa juste yaa ngi comprendre l'islam xamul tricher diine amul tricher li nga xamante ne mooy lu am joxoñ baaraam bi foofu directement ne fii la te oustaz Modou comme ci mu ci sëy la ëpp lu muy wax peut-être xam-xamam ci la toll xëy na peut-être ci li ma yaakaar mm. yaa ngi comprendre parce que ni ku ne dimension bi nga am ci côté xam-xam foofu nga mën a waxtaanee yaa ngi yaa ngi dégg ku nekk maanaam li ma sànq ku nekk sa fi nga sa dimension xam nga fu mu toll foofu ngay mën a di waxtaanee mm. yaa ngi comprendre xëy mm. na peut-être moom xam-xamam xëy na euh, gudd na yemul foofu kese mais Sénégal boo xoolee jamono ji ni muy tollee problème sëy dafa bari yaa ngi comprendre am na góor ñu bari xamuñu tey ni ñuy sangoo farata bu ñu sëkkee seen jabar pare am na jigéen ñoo xamante ne bu ñu sëkkee seen jëkkër xamuñu sangoo farata ak yenn ak yeneen ñoo xamante ne xaw ci ay waxtaane ci li nga xamante mooy ci plateau yooyu muy def mhm. yaa ngi dégg mhm. ah beneen bi euh, damay dégg sax nit ñi di ko tooñ naan ay oustaz la boo xam ne day waxtaane affaire mbirum noon mbirum soppe mbirum sera parce que euh, jamono dafa ñëw diine ak jamono parce que jamono bu toll rek euh, jamono fu mu toll rek ah, dimension boobu nga mën a waxtaane ak nit ñi pour ñu mun koo dégg parce que mhm. tey am na dimension boo xamante ne tey mënuñu ko waxtaan ak yow parce que da ngay déglu la mu dugg ci mbirumu ah, suñu maam yi mbirumu Ahmadou Bamba Xaadim Rasool wala mbirumu mu ah, Niass wala Cheikh Ibra léeg-léeg mu am dimension yi mu waxtaan ak yow yaa ngi Euh, des fois nga gis nit am ko xamante ci xel day sikki sàkk ne ah kii dimension bi mu waxtaanee de lii dafa maa nit ñi pour ñu dégg la niveau bu a waxtaan ak ñoom daal moo euh, ci ne man daal ci li ma jàpp moom oustaz Modou Fall ci li nga xam def na ko mais mu jël moo a génn di tamit Sénégal yi dañ koo bëgg te lépp te moom euh, oustaz Modou xam naa su ma waxee tam peut-être Sénégal ne Euh, moom oustaz bu fal xaw ma ko xamuma yaa ngi dégg euh, xaw ma ko xamuma hmm. mu yoruma numéro mu yorul sama numéro musuma gis hmm. yaa ngi dégg hmm. man peut-être li ma koy gis as tuut ma musuma koo gis mais man li may mën a expliquer mooy ci côté sénégalais yi euh, nit ku ñuul la yàlla bindee noonu parce que ñun surtout si ñun côté sénégalais yi mooy maanaam xolu xiñaan day gaaw a jàpp am na yenn nit ñoo xamante ne tey te mën nañ bokk benn métier ñëpp ñu liggéey ci métier boobu bu ñu si gën a fësal rek nga gën see fës erreur bu ndaw boo ko defee rek ñu ngàbb la ngàññ la ci oustaz yi nga xamante ñu ngi toog si télé yi di di dal ci kaw oustaz Modou Fall Fall di kaas ay mbirum oustaz Modou Fall mais alors sa mbokkum jullit bu defee erreur jarul ngay toog si télé di ko euh, wuli pandé mm. mais mën nañu toog ci li nga mm, mm. Ah, wax kàddu yi day ah, gis nañu lu mel nii nii day moo si nekk loo xamante ne tey ah, rafetlu ñu ko di ñaan nga def jéggal ci réew mi nit ñi ci wax jooju yaa ngi comprendre man d' accord naa loolu mais kaaka ñu leen invité si ay télévision wala ay feneen ñu fay toog naam di xas oustaz Modou di ko ma dem liggéey TFM si ñoom oustaz yi yaa ngi ko man moom la ko yàlla jagleel nañ ko nangul loolu dëgg la def na erreur de communication mais insulté na sénégalais yi loolu nag du dëgg du yoon faru ko ci loolu moom oustaz Modou Fall mais à part lépp lu muy def j'aime man bëgg naa li muy def mu ngi yeete mu ngi jàngale

tamit jërë ngeen jëf rendez-vous ah, ba beneen eh, xibaar ak yeneen waxtaan incha allah bi ma toog jaay ci plateau bi ñu faram fàcce ko. alors merci beaucoup gars yi am nañu mbégte contentement li leen indiloon comme information jaa ngeen jëf ba beneen yoon ak yeneen i mbir incha allah bi